di kontaan nag ci sama femme yi nga xam ne ñoo organisé tey journée de la femme di organiser ñi ñu àndal boobu ba léegi ñu wuñu taayi wuñu di sa rafetlu réalisation bi ba Macky Sall def fii ci commune Pikine Nord ak bi mu def ci département Pikine foog naa ni gis nañu arène nationale bi gis nañu jumaa ji nga xam ne depuis juróom fukki at président yu bari jaar nañ fi waaye kenn la xoolu ko laalu ko moom mu ñëw tey dañu ko defaral ak ñeenti tal yi nga xam ne mu ngi fii ci Pikine Nord te am na ñoo xam ne dañ koy mbubboo lu mel nuñ meeru Amadou jara projet bi nag projet président Macky Sall la ak woote waa département Pikine nañu ñëw àndandoo ñu doon benn muy femmes yi di jeunes yi di ndaw ñi ñun ñepp njabootu président Macky Sall lañ surtout département Pikine Macky Sall def fi am yaakar te ñun la ko yaakaare ñun famille yépp nañu andando doon ben liggéeyal président Macky Sall mon ko jott majorité assemblée nationale doxinu mbéru Pikine Nord gis ngeen ko lolu duma ko wax ndax ñun ñe ci tek seen bot defu fi dara ta lampe bu gëna ndaw ci commune bi taluk moy Abdou moy Amadou jara Amadou jara nak bu nekkee fële ci bitim réew di attaqué président Macky Sall foofu lay nekk di ko attaqué waaye bu ko attaqué fii xale yi ak jigéen ñi ñooy taxaw tontu ko. yaanaa maar tamit dama bëgg ñu xam ne borom xel bu leer moo mën a gisu leer sa xel bu leerul même boo solul lu ñuul da sa xel du ko gis boo solee lu weex tamit sa bu leerul tamit doo xam ne leer na lu lëndëm rek ngay gis lu ñuul rek lay gis Macky Sall ci ñe juróomi ñe juróomi at yi bu taxaw li mu yi mu toog bilan boo ko xoolee am na ñu fi nekk 12 ans te